ربي بما يزرعه alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwani wa tamkiin mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Ndiir mi xalifa Cheikh Babacar Sadikh Ndiir mu jëlee ndigal ci kilifaam Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ñu leen di yëgal bisub sunu jàmbaar ja Cheikh sa Sadikh Ndiir ñu ngi koy yëgal mbokk jullit yëpp fu ñu fu maa nekk di ko yëgal mbokk taalibe yi bis ba nag mi ngi dajeek le 2 mars di ñaar fukki fan ci weeru sax ban ñoo ngi koy yëgal mbokk jullit yëpp di ko yëgal Cheikh si nga xam ne moom lañ bokkal Serigne tuba te ñu féete ca wàllu làmbaay di jàmbaar yoo xam ne dañoo taxawaan bañ ak noteel waaye bañit ne dañuy wéy ci taalibe buñ ci tuddee Cheikh Babacar Cheikh Babacar Thiergane Ndiaye ak sëñ Aliou Diouf Lambaye ak sëñ Mor Mané di ñett ñu kàngam yooyu nga xam ne siiwoon nañ ci wàll googu danañ yóbbaale mbooleem kilifa yi nekk ca tundoo yëpp ñu ngi leen ko yëgal di leen ci woo di wax ne bis bi nag niñ ko yàgg waxee rek ñoo ñoom ñoo ko bokk seenu bis la ndax gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax ci waxtu woo bis bi ñëw na kon nag ñu leen koy fàttali bu baax a baax a baax a baax sëñ bi nee mi leen ko yëgal di leen ko fàttaliwaat di ci soññewaat tamit ci mbooleem yi nga xamee ni rek moom lañ ci daa féete kenn ku nekk ci wàllu gu nga daa féete rek sëñ bi nee na mi ngi la ñu soññaat bu baax a baax a baax a baax di la ko bàyyiloo xel wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum yéen bokki daayira bi yéen bokki mbuso noo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak ci saw sant di leen fàttali lu nu bokk muy bisub sëriñ baaba ndax nun amuñu lu may sëriñ baaba nuy ñaan sëñ Mundir mi nga xam ne mooy xalifaab sëñ Baaba yàlla yàggal ko fi lool guddalu fanam lool te may ko wér moo ak njabootam ak mboolem ko dëkk Mbuso di leen fàttali yéen waa daayira bi ñu doolee góorgóorlu doolee jàppante te yàlla rek tax ndax àdduna lu dul lu baax amu fi solo kon nan leen góor góorgóorlu mag ñi ñu fi fekkante wàcc nañu ndax liggéeyal nañu yàlla ba saa borom jëlee leen fi te ci lu baax la ñu nekkan doon jëfu yiw di dimbalante te yàlla tax ci loolee nu leen ñu bàyyee nag nag muy ndono ci nun war nañ cee góorgóorlu war nañ cee jàpp bu baax a baax di sant waa dëkk bi di leen wax ne mboolem la Serigne Touba di tere fa Touba Cheikh Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba di ko bañ fa Touba loolu la ñuy bañ fa Touba Mbuso la woote mooy màggal la woote ku ñëw na ànd ak yar ak teggin lépp lu ñuy bañ fa Touba noo ngi bañ fa Touba Mbuso nuy woo dëkk yi nu wër yépp nag tund làmbaay ak mboolem li ko wër bawunu kenn bawunu fenn bawunu ñenn waa dëkk bi bu gan ñi ñëwee na ngeen génn ñu jàppale gan ñi teral gan ñi teeru leen dalal leen te yàlla rek tax nuy ñaan ki fi nekkal sëñ baaba daal yàlla na yàlla guddal fanam ak njobootu sëñ baaba yëpp di ñaan it waa dëkk bi yàlla guddal seeni fan ndax xale yi seen ab taxawaay rafet na seen àndandoo rafet na noo ngi sañ sant waa sanca mbuso waa njeng waa garaasu mbuso bawunu kenn tugu jëkk tuubaa ndondal ba mirina fay bawunu fenn bàyyiwunu fenn mbajaanu góora ba lambaay ba jama càdda ak mbëreeg ñëpp noo ngi leen di sant di leen woo ci bisub sëñ baaba bi ndax nun de amuñu lu may sëñ baaba ndax sëñ baaba de amuñu lu nu ko faye ndax liggéey lan liggéey bu rëy ndax yóbbu gii mu dem ci sëñ Tuubaa ñu ànd ak moom topp ko di diglu ndigalam di diglu moytu ay tereem sunu njariña nun waa Mbuso de waaye sëñ baab moom la muy njariñ la koy jariñ moom laata muy gane jamono saa defal na ko ko kon nun war nanoo góorgóorlu war nanoo takku war nanoo taxawaat te fi di liwaat tunu taxawaay noo sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant xelay daayira bi yal na yàlla lafal leen cat yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla aar leen ci darajaay yonent bi barke sëñ Baaba Ndiir asalaamaaleykum wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di gën a santaat bu baax suñu borom di ñaan Cheikh Mahamadul Muntaxa suñ borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér waaye di ñaanal baax Cheikh Mahamadul Ndiir xalifa Cheikh Baaba di xalifa Maama Ndiir Faboy suñ borom dolli ko sàmm dool koo aar te yàggalal ñu ko fi lool barke sëñ Touba euh, ñu ngi woo mbokki jullit yëpp di woo mbokki taalib bi yëpp bu ngeen noo gisee rek jataay bi ñu baaxoo toog muy fàttali ko sunu jàmbaar ja Cheikh Babacar Sadikh Ndiir di ca woo fu waay mën a nekk ci tund bawal bàyyi ñu kenn la dalee Lambaye maire de Lambaye sa docteur Assane Ndiaye euh, ñu ngi ko cay woo ca bis ba di ca woo monsieur Pape Dieng ba jaanu góora ñu ngi ko cay woo di woo madame Aïda Mbodj Bambey moom it ñu ngi ko cay woo di woo Pape Amar Momar Ndiaye ca Pape Amar Ndiaye ca Ngogam moom it ñu ngi ko cay woo di woo mboolem autorités yi nga xam ne ñu ngi nekk biir Lambaye ak li ko wër bàyyi ñu fenn waaye nag di mbokk woo suñ mbokk yi xam ne ñoom lañ seqal Lambaye gépp bàyyi ñu fa kenn muy dëkk yi wër Mbuso ak ñi nga xam ne ñoom lañ seqal àdduna bi ci wàllu lislaam ak ñi nga xam ne moom lañ seqal wàllu aada bi ñu ngi ciy woo ñëpp bu ñu dellusee fii ci dakaar it di woo fépp foo xam ne mbokkum diine nekk na fa moo xam ndakaaru ak li ko wër euh, ak boo génnee ndakaaru jëm côté ci ci àll bi foofu waay no nekk rek te sant ndiir ak koo mën a doon rek ñu ngi lay woo ci bis ba dina xamal ne bis boobu mooy bis boo xam ne ci la ñuy fàttaliku suñu jàmbaar ja baaba Babacar Ndiir ci Mbuso Ndiir kon ña ngi cay woo ñëpp mu mel ni bis bu nu xëyee euh, euh, li ko li ko sëriñ bi waxee toujours rek lay ubbi bis moo di njàngam alxuraan ak xasida ndax seex baaba ku koy ku koy fàttaliku ci ñaar yi da nga ko mën a fàttalikoo jàng alxuraan jàng xasida ak bernde teeru gan ak tàttagal gan ña ñu ngi tey woo ñëpp di ñaan nag euh, ñu yàgg koo fekkee yàgg koo teewee ci barke Cheikh Baba Ndiir waaye di ñaanalaat bu baax a baax Cheikh Mahamadou Ndiir xalifa Cheikh Babacar Sadikh Ndiir suñ borom gën koo wéral te gën koo sàmm ñu xam ne rek euh, bis ba moom comme dañoo wootee bëgg ñëpp wuy suñu rek kon ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiñu kenn koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu foo mën a nekk rek ñu ngi lay woo ca bis ba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan yi nuyu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu sëriñ bi sëñ Mountakha Bassir ak Cheikh Babacar Sadikh Ndiir mi nga xam ne moo waral bis bi ak sëriñ Modou Ndiir mi nga xam ne moo ko fi nekkal sunu kàddu bu ngeen ko déggee mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku génn senegal rek ak foo mën a nekk ak ci loo mën a yëngu ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ne ku ci nekk waruñu laa soññ ndax yaa ko war a soññee kon bu ngeen ko gisee mooy mbir mi amut tànki ginnaaw tànki kanam rek la am ndax yaakaar naa ne nan ko commencé woon ak tey fi mu toll comme ni ko Baye Baba waxee war nañ cee doolee góorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nit ku nekk amut lu dul fa mu dëkk ak fa mu jóge ak kay sëriñam ak nam taxaw woon te ñun ñëpp képp ku fi toog ak ku génn ku génnut xam nga ne am nga yokkute bu wér am nga yokkute bu wér a wér a wér ndax borom bis bi mës a génn fa mu nekk te lu ci war da nga daa def di ko jëf kon benn jaaxle ci njëf wala luñ ci war a def wër ta mën a am ñu bu baax a baax a baax a baax euh, duñ ci lim ma wala demba ku génn Sénégal te nekkoo Sénégal rek yow la ñuy waxal kàddu gi yaa ko moom lu la ci war ak fu sa kem kàttan nekk nga jëf ko ci ñu ngi ci woo bépp jullit bépp taalibe képp koo xaay ni yaa ngi dégg suñu kàddu rek ñu ngi lay ñaan nga ñëw ci bis bi yéen it na ngeen góor góorlu ndax lii duy caaxaan ndax bu doon caaxaan du ak si fii yàlla na leen yàlla doolee kàttanal dooli leen wér dooli leen taxawaay ngeen am dooley saayiro baatin am xaalis bu baree bare bare ba li ngeen yéene ci mbusandiir sun borom defal leen ko asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki mbusa yi. maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak ci sa sant di leen balaax di leen balaax tey ñaan yàlla suñu borom boole jéggal nu may commencé samay wax ci barkeb Seex Sidina Ndiir barkeb Seex Sidina Ndiir barkeb Seex Sidina Ndiir man xaw ma sëñ baaba Seex Sidina Ndiir laa xam moo ma boole ci sëñ baaba damaa judd ñoo fekk samay baay ànd ak sëñ baaba ba sëñ baaba jóge fi ñu ànd ak sëriñ Sidi sama baay yëkkati ma jox ma sëñ siidi mu yar ma lu nekk ci man wala lu ma xam wala lu ma man sëñ Sidi waaye ma leen di xamal ne sëriñ Sidi Ndiir rekk rekk rekk doy na ci tund làmbaay waxuma laa sëñ Baaba Ndiir ci li ma xam kon daayira bi ci boppam nun ak suñuy baay ñoo ci nekkan di ci yëngu maak Baaba Fay mi ak baay Baaba Fay ca ngawul ak mag ñu baree baree bari ma nekk seen tu tànk ci ñoom ñu yëngu ci daayira bi dañ daan def fii kees maa ko daan laaj baaba fay mii di ko denc kon bu ma fi jëlee kàddu war naa fee jël kàddu ndax xam naa ci lu gàtt gàtt ay xisa yu baree baree baree bari daayira bi buñ ko masaa laaj ba màggal ak Tuubaa jot buñ demaa sëñ Muuru Mbàkke mu ngi wan ci àll bi sëñ Muuru Mbàkke niir mi doomi sëñ baaba mu ngi won ci àll bi moog baaba ndiir waaye bu ñu mës a dem Touba baabandiir day ñëw ba ci nun bu sëñ Mourou Mbacke màggal si wut mu ne suñu cotisation ci màggal gi mu ngi nii maag sëñ Mourou Mbacke ndax sëñ Mourou Mbacke dañ daan wax ne taalibe laa lépp lu ngeen di sasab taalibe dee leen ma ko sas ci kër gi man ab taalibe laa comme yéen màggalu Touba màggalam bu sa saa yu mën a saa yu mënuta na ñëw da daan jox Baba Ndiir wàllam li muy participer ci màggal gi bu ñëwee du ko teg ci loxool sëñ Sidi ci suñuy loxo la koy teg maag Baba Fay mi ak baay Baba Fay ñoom ñu boole kook lañu am dugal ko ci biir bisab sëñ baaba yi wala màggal ak Tuuba kon ah, buñ dee dox di dox di dox ba yëf yi si fii yéen ñi nga xay ne yéen ay suñuy rak ak suñuy jarbaat ngeen aw na ci ameel nañ leen cant ameel nañ leen njukkal ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu boroom gën a guddal seen fan te gën leen a kàttanal te ngeen gën a boole seen bopp nag nekk benn ndax jamono ji gàllankoor yi bari na lool waaye da ngay gëm sab sëriñ bu wér ne sab sëriñ am na cër ca yàlla nga gëm lam lay digal di daw lam lay tere bu ko defee yàlla kàttanal la dimbal leen ndax yéen ñii nga xay ne yéen a yore daayira bi léegi ñaanal ñëpp fan wu gudd ànd ak wér ak yaram di wax jërëjëfa sëñ Siri Ndiir jërëjëfa sëriñ Siri Ndiir jërëjëfa seex Baba Ndiir Cheikh Muudu Ndiir Lambaay mii xalifaab sëñ Baba yàlla na yàlla dolli ko fan wu gudd doolee wéralu yaramam tey yéen yàlla sàmm leen aar leen ba fi ngeen bëgg a yeggale bis bi ngeen man ko faa yeggale ci barkeb Cheikh Baba Ndingue asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi sami alim min asheytan rajim wala wala quwata illa billahi wa sallallahu ala wa ala wa sahbihi wa sallama taslima asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalib yi xarit soppi am di jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di fàttali sunu bis bi nga xam ne moom la am muy bisu Boussa Ndir di bus Cheikh Ababacar Sadikh nga xam ne moom la màggal ci ñaar fukki fan ci weeru baraxlu wii ñu ne moom lañ koy màgg ci Boussa ñu ngi ci woo nag képp koo xamante ni ñoo bokk si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul ñu ngi la cay woo di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye di jaajëfal sunu sëriñ sunu xalifa Cheikh Mouhamadou Ndir mu yàgg fi te ànd ak wér ak mbooleem rakkam yi di wax ne mbo sëñ Modou Ndir ak mbooleem rakkam yi ne ci ginnaawam yëpp ñu ngi woo mbooleem koo xam ne nii ab seex nga ci bawar rek doon kilifa ak diine ci bawar rek ñu ngi lay woo ci bis boobu di ci fàttali tamit jànkat yi alquraan yi rawatina daar yi nga xam ne mbooleem ñi bokk ci commune làmbaay ñu ngi la ciy woo ci bis ba ci jàng alquraan ak xasida bernde ja nga xam ne moom it ñu ngi ko cay ñaan yàlla suñu borom jàppandal ko ci mboolem taalibe yëpp diñ ci yéene yàlla suñu borom defandi ko buñ ci tuddee na comme ni ko Cheikh mu Mountakha waxee rek buñ ci jiitalee sëñ Babacar Thier Gaan sëñ Aliou Diouf Lambaay sëriñ Mamar Maane ak mboolem seexi boowal yëpp rek ñu ngi leen di woo ci bis bi ci ndigal Cheikh Mouhamadou Ndiir euh, mi nga xam ne mooy xalifa ba ci leen koy wootee kon bàyyi ñu kenn bàyyi ñu benn daara bàyyi ñu benn dëkk ñu ngi woo mboolem dëkk yi ñu wër yëpp rek a alxuraan fu mën a nekk rek ñu ngi leen woo ci bis boobu di leen wax ne bis bi euh, lu ñaar fukki fan ci weeru barax lu wii la ñu ngi ciy ñaan yàlla yal nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm euh, te fekk ko te yàlla defañ ci xéwal yu bari te barkeel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë nga jëf mbokk yi kon kaddu yaa ngi noonu bis baa ngi noonu ñoo leen koy bàyyi waat xel bu baax rek le 2 mars di ñaar fukki fan ci weeru baraxlu loolu nag ñu ngi ci wawaat sunu sëriñ si Abdou Hakim ibnu sëriñ Moussa Basirou nga xam ne moom moom la sëñ bi ba Bambey euh, mu nekk koo xam ne nit ku baax ku amuk yaatu koo xam ne ni li taxan waajuram wa doolal ko fee mu ko doolal de naa na lépp kon ñu ngi ñaan suñu borom bu yàggal ko fi lool ñu ngi koy yëgalaat bis bi bis bi nag bisam la ndax kenn daaw ko ci te it moo fay mujj naka noonu it ñu ngi koy yëgalaat sous-préfet bu Lambaye ñu ngi koy yëgalaat bu baax moom Cheikh Dieng ñu koy yëgalaat bis di ko fàttali naka noonu it chef de brigade bu Lambaye moom it ñu koy yëgalaat bis di ko fàttali kon programme ba ni nii lay tëddee bu ñu àggee ci bis bi incha allah bu ñu xëyee danañ amal am njàngum njàngum alxuraanul karim naka noonu ak njàngum xasida ci njiital sëriñ Bay Ndiir Mbusa Sanc yaakaar naa lool it bu yàgg ba léegi sëriñ bi ci loxoom la ko teg moom it waxtu wu nekk rek mu cay wane yéeneem ak pas-pasam ak pastéefam taala danañ jël siwaat ci euh, baas bi wayal am njàngum xasida ci ñaari kuréel yi nga xam ne ni doomi dëkk bi lañ ñoom it di jàmbaar lool ci liggéey bi bokko ñu liggéey bi te kenn mënu leen ci muy kuréel wakaana xaqan aleyna nasrul mu'minin dana fa amal am njàngum xasida bu waxtu woo xam ne ni bàyyi na moom it incha allah Matlabul Fawzayni ñoom it danañ fa amal am njàngum xasida li des ci guddi gi nag baa ko yëgalaat bu baax di leen ko fàttali kon daal am nga liggéey bu ñu la dénk ci bis liggéey boobu jàppale lépp loo xam ne defal nga ko ci war nga ko yokkaat muy daayir Matlabul nga xam ne ñoom daa yor ñoo ñoom lañ dénkan wàllum zéro minute officiel bi wax dëgg yàlla macha allah seen taxawaay rafet na lool ñoom ñu ngi leen koy yëgalaat di leen ko fàttaliwaat bu baax a a baax a baax naka dëkk bi ñoom it ngi leen di fàttaliwaat baax seenub liggéey yaakaar naa daaw boo xam ne nii macha allah kon ñoom ñu ngi leen di yëg bàyyilawaat bis xel bu baax a baax a baax lañ leen dénkan daaw dañ ko gën a feddaliwaat naka noonu it waa Safinul Aman muy daayira bi nga xam ne moo ŋànk mbooleem daayira yi nekk turum Lambaay ñoom it ñu ngi leen di yëgalaat bis bi di leen ko fàttaliwaat bu a ko safoo na ko mi ngi leen di fàttaliwaat di leen fàttaliwaat bis bi di xam ne lépp loo xam ne taxawoon nañ ko ci rek seen bopp lañ ko defal kon ñi ngi ñaan mbooleem ñi nga xamee daal am nañu yéene ci bis bi ak mbooleem ñi nga xamee ne am na lu ñu dénk ci bis bi yàlla na leen suñu borom man loo loola kat nañ leen lépp loo xam ne nar naa am lu loo xam ne nii nit war na caa taxaw def ko daal bu fekkee nit ke néewu fa yàlla suñu borom wóotal jëmm ju fa taxaw def loola ñu bëgg incha allah ndéem som na suñu borom di suñu bopp di soññaat mbokk yëpp ñu gën a amaat pastéef gën a di ñaanal suñu muudi mi nga xam ne nii mooy xalifa Cheikh Babacar Sadikh Ndir te wax ñu wax ju dal xel lépp loo xam ne tàmbali ngeen ko te ma fekke ko dana àgg kon ñu ngi ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te bàyyi ko kilifaam gu baax gi di Sëriñ Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér di soññaa suñu bopp bu baax bis bi nag liñ ci war ñun leen rek la muy ak yaatal ak ubbeeko ndax dañuy wax ne basaasatul wàj al mari xayrul min al xira kon fekkee fa bi man yaati bien yi wama daaxi ko mbégteem xar kanam moo gënal gan gi sax ci nga berdel ko kon nag bu ñu yàlla dimbalee ñun ban boole ñaar maanaam mbégteem xar kanam ba noppi nag ber ndey doy sëkk la rabbil alamin lañ ci wax kon daal ñu ngi koy yëgal mbooleem képp koo xam ne ne rek ab jullit nga ñu ngi la di ko yëgal taalibe yëpp di ko yëgal waa département Bambey bi yëpp di ko yëgal mbooleem dëkk yi nekk tuddi la mbay bu ñu limee duñ matal waaye képp koo xam ne daal jàpp nga yëg nga ne ñaar fukki fan barax li mu ngi ñëw ci kanam jàppal ne mooy sa woote mooy sa yëgle ñoo ngi jégulaat baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Rabbi